la ah, ren situation sanitaire bi mayuñu ñuy def des manifestations de masse dinañu def suñu petit déjeuner traditionnel bi avons daan defal euh, maladie hôpital Nous rek lañuy def ci lo lu euh, mais les si des dañ vraiment à travers la presse les réseaux sociaux pour faire des bëgg def sensibilisation. bañuy commencer ñun. Euh, traitement cancer dana daan na dem ba 2 millions mu xaw a wàcc bu dee hôpital mu xaw a wàcc ba 1 million euh, million ak euh, juróom fukki junni ba juróom benn fukki junni nëga ni si daaw bi ñu ne maye nañu chimiothérapie bi tey mu ngi si million bu manqué ñaar fukki junni boo boo ko xaymaa noonu rek tënk ko kon na xam nga loolu ba tey mi ngi cher ba tey te loolu tamit si koo xam ne nag néew doole la loolu day xaw a metti ka amul du mën a ñëw faju faju si ndax boo ñëwee ñu ne la demal nga defi euh, analyse yi analyse bi lu mu néew néew néew néew la gën a analyse wala rajo bi gën a yomb dana dem ba juróom benn junni wala juróom ñetti junni loolu tamit xam nga loolu du ñëpp ko mën wala nga génne loolu def ko mën nga ko nga def ko nga paré bobu ñu ne demal defet beneen nga paré bobu ñu ne demal defee scanner scanner ñaar fukki jundé ak ñeent la kan moko ko mën chimiothérapie bi ñu waay bi ñu lu mu jur aspect positif bo xamné jur nako ci bi prise en charge bi mais Covid bi ñëw na tamit kase ka ndax ki nga xamné ma nga ma nga ndar daan ñëw tous les trois semaines sen Dakar wala mu dem Thiès.

loolu tamit eh, lu bàyyi loolu lu que il faut tamit suñu suñu gouvernants nous ñu des études seet nan créer des centres dans les hôpitaux régionaux ñu créer des centres de prise en charge des cancers parce que tamit vraiment 2020 2020 pour nga faju ben pathologie il faut nga jóge deuk ak dëkk pour ñëw faju ci loolu tamit dafa upp dafa metti